Ziguinchor Kasumay Ziguinchor Issa Foul waa Ziguinchor ci dëkk bu tedd ci dëkku Aline Sitoé Diatta ci dëkku Jules François Bocandé ci dëkku Ousmane Sembène mais ci dëkku sunu coach Alioune Cissé sama turando le premier entraîneur sénégalais champion d'Afrique ñu di ko remercier mais ñëw ci dëkku sunu mbokk sunu doomu ndey sunu naataango président Ousmane Sonko di wax ni am nañu mbégte ñëw fii ci Ziguinchor ci campagne bi nga xam ne ci la ñu nekk pour waxtaan ak waa Ziguinchor xam ngeen ni fii dëkku teraanga la xam ngeen ni fii dëkk ay bañkat la xam ngeen ne fii dëkku liggéeykat la xam ngeen ne fii dëkku engagement la ak détermination loolu bu ñu fi ñëwee dama bëggoon rendre hommage ñooñu ma fi tudd léegi ku wax Aline Sitoé Diatta wax la résistance ku wax Aline Sitoé Diatta wax jigéen ju mën góor mooy tax ci sunu programme ma wax ni jigéen ñi am nañ ci njëriñ am nañ ci solo Sénégal niñ ko war a tabaxee ak niñ ko war a defaree jigéen ñi dama bëgg ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax a baax a ah di wax ni Ziguinchor xam nañ ay jafe-jafe yi nga xam ne moo fi nekk premier jafe-jafe bi mooy enclavement te Ziguinchor la Casamance sax lay wax mooy war a nekk wax naa ko démb le grenier du Sénégal lépp loo xam ne dañ koy dunde ci réew mi fii ci Casamance lañ ko war a béyee li may wax le garden the garden state ou the garden region of Sénégal donc enclavement boobu enclavement boobu ñun incha allah bu ñu yàlla dénkee réew mi dem Ziguinchor mooy gën a yomb nga jóge Dakar ñëw Ziguinchor dina gën a yomb parce que yoon bi metti na fi laa jaar léegi ñu koy defar depuis xaw ma kañ mënul pare bateau yi dañ ko arrêté woon récemment lañ soog a commencé waat loolu jaaduwul parce que bateau yi dafa amal waa Ziguinchor njariñ en termes de transport de personne mais aussi en termes de transport de marchandises qui développer économie Ziguinchor ak développer économie Sénégal am na ci solo bu baax a baax a baax ñun nag incha allah bu ñu ñëwee dinañ gën a renforcer navigabilité bi entre Ziguinchor ak Dakar mais pourquoi pas entre Ziguinchor ak Mbour entre Ziguinchor entre Ziguinchor ak Joal parce que ku am ay marchandises bëgg jaar ci bateau bi bu dee yaa ngi Joal da ngay dem ba dakaar pour mën ko andi Ziguinchor ma jàpp ne war nañu mën a gën a yokk navigabilité bi entre Ziguinchor à travers la mer entre Ziguinchor ak Joal notamment ci lépp loo xam ne produit halieutique la ñu bëgg a yokk navigabilité bi entre Ziguinchor ak Mbour bëgg a yokk navigabilité bi entre Ziguinchor ak Kayar bëgg ko yokk entre Ziguinchor ak Saint-Louis loolu mooy li nga xam ne loolu la ñu bëgg jàpp naa ni même sax war nañu am ay bateau yoo xam ne fii ci Ziguinchor ku bëgg a dem bi saawo mën nga jël benn navette dem Guinée-Bissau ñëwaat loolu moo jaadu réew yi développé yépp te am géej géej gi dañ koy utiliser pour transport marchandise ak pour transport des biens donc loolu ci navigabilité bi incha allah dinañ ci liggéey liggéey bu mucc ayib mais li ñu bëgg mooy aussi fexe ba ay sénégalais mën a investir ci loolu ba nga xam ne dañ mën a indi ay bateau yu am sécurité yoo xam ne dañ mën a transporter nit ñi ñuy dem ak ñëw du rek Ziguinchor ak Dakar mooy li ma wax mais Ziguinchor ak yeneen localité yoo xam ne am nañ importance fii ci Sénégal lu amul lu masul am Ziguinchor incha allah bu ma nekkee président la république du Sénégal dinaa ko andi Ziguinchor mooy lan mooy lan le train le train ñun ci sunu politique on amènera le train jusqu'à Ziguinchor waxuma train euh, yu yemamaay mais sunu projet mooy développer ay lignes de train à grande vitesse ay TGV yoo xam ne en deux heures de temps ou en une heure di nga jógee Ziguinchor dem Tamba jóge Tamba dem Dakar mu jaar ci ay dëkk yu bare bare bari loolu c'est extrêmement important donc en matière de désenclavement bëgg nañu ci am liggéey bu am solo boo xam ne dinañ ko andi pour que toute la Casamance waxuma rek Ziguinchor mais que toutes les population de la Casamance puissent se déplacer heure bu ñu bëggee demee mais aussi déplacé wu ak sécurité leneen li nga xam ne moom moo am fii di potentiel bu extrêmement important te kenn rentabiliser wu ko mooy agriculture Ziguinchor wala la casamence bañ nañ ko ba dañuy wax la verte Casamance wala la région naturelle de la Casamance fii loo fi jëmbat loo fi ji mu sax parce que am na ndox parce que suuf si barkeel na parce que am na naaj ma jàpp ne lii gouvernement du Sénégal war mën a capitaliser rentabiliser la région naturelle de la Casamance ci agriculture ci élevage ci pêche aussi bien ci aquaculture ak pisciculture dafa des ñun nag xam nañ potentiel potentiel bi nga xam ni moom moo nekk fii ci région naturelle de la Casamance fii ci Ziguinchor incha allah bu ñu jëlee réew mi dinañu taxaw ci loolu bu baax a baax a baax a baax a baax. li ci des li ci des mbokk yi li ci des mooy ñu taxawu ñu taxawu les populations parce que xam nañ le taux de pauvreté est extrêmement élevé dans la région naturelle de la Casamance sama ambition mooy ñu xeex ndóol ba jëlee ko Sénégal sama ambition mooy que le Sénégal soit au rendez-vous de l'ODD de de l'agenda 2030 objectif de développement numéro un xam ngeen c'est l'éradication de la pauvreté bëgg na en 2030 bu ñu demee di def rapport aux Nations Unies à l'Assemblée générale man président de la République du Sénégal ma taxaw à la tribune des Nations Unies ñun au Sénégal nous avons nous avons éradiqué la pauvreté chez nous et c'est bien possible il suffit simplement de rentabiliser il suffit simplement de mieux gérer nos ressources publiques Il suffit simplement de créer des opportunités pour les jeunes. Il suffit de créer des opportunités pour les femmes. Il suffit de développer une économie vibrante. boo xam ne c'est porté par notre secteur primaire Ziguinchor ku ko xam xam ne ci démb dafa amoon ay entreprise dafa amoon ay industrie xamoon nañ fi Sonacos xamoon nañ fi yeneen ak yeneen industrie yoo xam ne nekkoon nañ fi waa Ziguinchor di ci liggéey mu leen di amal njariñ industrialisation boobu tey gis nañ ne Ziguinchor amatul pratiquement benn industrie ñun nag ñu bëgg développer surtout les industries de transformation agroalimentaire waa Ziguinchor xam ngeen ne fii bu mango jotee bu ngeen duggee fii ci àll bi mango yi dañuy nëb di daanu te kenn du ko utiliser muy mango muy anacarde muy yeneen yeneen ay fruits yoo xam ni war nañ ko mën a transformer fii mën ko récolter mën ko transformer mën ko pak def packaging bi mën ko yóbbu assurer qualité bi mën ko exporter ba États-Unis parce que AGOA mu ngi fii mën nañ ko utiliser parce que la zone africaine euh, la zone africaine de libre-échange continentale ce qu'on appelle la ZLECAf mu ngi fii te Ziguinchor li mu am ci ay fruits li mu am ci ay ressources buñ ko rentabiliser jigéenu Ziguinchor yi nga xam ne dañu nekk dans la transformation dinañu mën a exporter seen ay produits ba Zimbabwe ba Afrique du Sud ba Kenya ba feneen ak feneen ak feneen donc loolu moom la ñu yéene Ziguinchor ku wax Ziguinchor wax tourisme Ziguinchor la région naturelle de la Casamance moo ëpp ay sites yu rafet ay sites touristiques ci Sénégal sit yooyu man bi ma fi ñëwee récemment di dem Cap Skirring j'étais tellement émerveillé par les sites que je vois par les paysages paradisiaques que je vois dama mujj arrêter sama cortège taxaw di contempler cette belle nature donc ma jàpp ne li nekk fii ci ay sites euh, touristiques war nañ ko gën a mën a rentabiliser war nañ ko gën a mën a fullaal ba nga xam ni dinañ mën a attirer ay touristes yu ñëw fii mais quand je dis touriste waxuma rek ñoo xam ne bitim réew lañ jógee le tourisme na le tourisme national sénégalais yi war nañu mën a jóge Saint-Louis jóge tàmba jóge Dakar jóge Mbour jóge Kaffrine jóge fu nekk ñëw def ci tourisme fii ci Ziguinchor fii ci Casamance loolu ñu war ko yombal bu baax a baax a baax donc tourisme incha allah bëgg nañu au-delà du tourisme balnéaire ñu créer aussi à si dans la région naturelle de la Casamance ay sites touristiques yu am solo mën ko rentabiliser mu mën a amal sunu réew njariñ mbokk yi damay terminer di wax ci un appel à la paix encore un appel à la paix parce que wax naa ko l'autre nom du développement c'est la paix quand notre pays sera en paix nous allons nous développer très rapidement donc fii ci Ziguinchor symbole bi ci sama ginnaaw mooy picc bii ngeen di gis mooy la colombe mu nga xam ne moom mooy matérialiser la paix ma di leen wax colombe bi moom moo nekk ci suñu bulletin mu ñu nee ngeen di gis donc li ñu yitteel li ñu yitteel li ñu yitteel mooy Sénégal nekk ci jàmm Sénégal jàmm sax fi Sénégal nekk ci paix ci tranquillité ci stabilité ba nga xam ni nit ñi dinañu mën a dem mën a dikk mën a liggéey liggéey bu am solo ñu développer sunu réew donc Ziguinchor ku fi ñëw di nga def un appel un appel à la paix ñu bëgg waa Sénégal yëpp liggéey ci loolu may jël engagement man Aliou du Dia su ma nekkee président de la République du Sénégal incha allah bépp jafe-jafe wala bépp conflit boo xam ne am na sur le territoire national dinaa ci liggéey ba conf ba conflit boobu wala en tout cas crise boobu ñu mën ko résoudre et je parle de la crise casamançaise je prends l'engagement devant le peuple sénégalais si je suis élu président de la République du Sénégal avant la fin de mon mandat dinaa fexe ba jàmm jàmm bu sax dàkk dellu si fii ci Casamance ñu mën a nekk ci jàmm li nga xam ne moom la ñu war a def ñu def ko mbokk yi loolu la ñu amoon ci message boo xam ne bëggoon naa ko partager ak waa Ziguinchor di leen wax ni le 24 mars incha allah dama bëgg ñëpp takku taxaw ba nga xam ni dinañu mën a sécuriser sunu vote nit ñi génn dem vote ji. allah avant 20 heures, le meilleur profil, le, le, le, candidat qui a le plus de compétences en termes de développement, le meilleur parcours en termes de développement, pour amener Sénégal ambition d'effort correct, moom moo ko yitteel ñu wóolu ko ku jox ko réew mi ñu dellu nag ci liggéey Sénégal depuis des années kenn liggéeyul dama bëgg réew mi dellu ci liggéey ñu ñëpp ñu takku avant lu yàggul dara réew mi nekk ci jàmm ñu xeex ndóol andi nit ñi feebar faju njàng mi ñu defar ko taxaw baykat yi taxaw nappkat yi taxawu xale yi jakarta maan yi gëmuma ne benn xale war nga mën a def sa liggéey jakarta ñu parce que amuñu opportunité ñu war leen a taxaw taxaw transporteurs yi taxawu artisans yi taxaw ñëpp ba réew mi mais surtout ñu taxaw sunu mbokk yi nga xam ni dañu dund ak laago les personnes handicapées ma leen di bàyyi xel bu baax a baax programme parce que wax naa ko nee na bu ma ñëwee la loi d'orientation sociale liñ ci nekk ci ay dispositions man Aliou Mamadou Dia dinaa ko appliquer ba nga xam ne les personnes vivant avec handicap ñu mën a jouer seen rôle pleinement dans la construction de notre pays et de not nation et je vous remercie waaso yi xeet yi loolu dafa war a dakk parce que mënuñu def lenn. te jàmm amul kon nañu jiital boole xol yi te xam ne lépp lu ñu liggéey suñu doom yi ak suñu sët yi lañ koy defal te suñu doom yi suñu sëti mun na doon doomu sëtu képp ci senegal kon ñun amuñu xaj ak seen ñépp lañ ci yemale ñu leen di wax nag ne bay leen xel bu baax ci loo xam ne bu la yàlla tàccoo feccal feccal chance bi ngeen am tey mooy am ngeen ay nitu dëgg yu fekkante def leen vaar du ngeen gis lu waroog li ñuy wax tey li amoon dix ans benn tey moom lay wax te foog naa ne ku xam pur ku xam euh, Seydi Mouhamadou Moustapha euh, Sy xam ne xam ne xam ne xam ne citoyenneté engagée moo leen intéressé du alal bàyyi leen xel bu baax ci li ngeen di def dimanche seen doom yi ak seen sët yi ñooy engagé wu nag li ñuy wax du dañ dañu bëgg a soppi réew mi définitivement mu doon mu doon le premier pays africain d'Afrique de l'Ouest boo boo xam ne dina dinañu béy di dundee ba mat sëkk lekk ba suur suñu doom yi di am doole di dem jàng ñoom ñëpp du bu kenn bàyyi jàng yi ñoom ñëpp ñu doon ay Cheikh Anta Diop te Sénégal dafa am chance am ay doom yu am xel bu may gis xale yi di dox ci mbedd yi diggante Ñaaxaar ak Fatick pour dem ci seen CM yi wala lycée yi sama xol day metti loolu dafay dàkk te loolu ñun pare nañu pour dàkkal ko may ñan sénégalais yëpp rawatina ñii nekk fii ci sama département wu maam ñu jàppale ñu ma leen di ci woo ci turu suñuy maam yi ci turu suñuy maam yi laa lañ koy laaj man Bruno D'erneville doomu Joseph mendi doomu Brigitte Mendy doomu euh, Elisabeth Gomis kon jërëjëf maa ngi leen di jégalu nag ci kàddu di leen jégalu waaye di leen wax ah di dox ah, dox daje ah, dimanche prochain incha merci merci merci merci le directeur de campagne monsieur Bruno Deneville ci ci kàddu yooyu donc gars yi gars yi kan la ñuy jox parole bii gars bii